maaleykum. waaleykum salaam na ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax foo ñu woowee. maa ngi lay woowee Kédougou. naka waa Kédougou. waa Kédougou ñu baax a baax. waa Kédougou moom baa foofu amu leen jafe-jafe internet. non Kédougou am na ay jafe-jafe de. Ah, kon mbir mi fépp la ndax ah ñun waa Ndakaaru dañoo jàpp ne ñun rek la affaire bi gën a laal. eh du yéen kese de ñun ñëpp la. Hmm, kon Massa. waaw. ayca bismillah ci waxtaan bi. Ah, ah, di métti lu xew ci réew mi rek. Hmm. waaw parce que réew moom boo xoolee joxewuñu ko ko woon nii. ñoom mhm. xale yi ñoo ko faloon. Mhm. léegi tamit xale yooyu ñoo dem ba doyal ci moom. Mhm. léegi nag dañoo bëgg fal koo xam ne si ni bu ñëwee dañuy defar suñu réew. te kiñ ci wóolu moom mooy Sonko. allo. oui yore la ñuy déglu sëñ bi. ñun moom lañ àndal tey moom lañ àndal suba moom lañ àndal gannaaw suba. Mm-hmm. te ñàkk mën a ñëw moo tax ñëwuñu. Mm-hmm. parce que métti nañu lool lool lool waa xaaral ma jox sama sama bi. Mm-hmm. xaaral ñoo ngi koy xaar. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi ñu ngi ziar. ñoo ngi delloo ziar bu wér. ñu ngi sant yàlla. waaw xanaa di rafetlu rek seen taxawaay. merci merci beaucoup ñoo ko bokk. waaw li ñuy métti lu rek mooy Macky Sall kenn waxut ne kenn waxut ne du yeggale mandaam mhm. mais tappale yi nga xam ne moom lañ teg ci président Ousmane Sonko lañ bëgg mu teggee ko. Mhm. réew mënta am jàmm te dëgg amu fa. Mhm. foog nit ñi nit ñuy wax li li li am. d'accord. li am foog ñu di ko wax parce que dëgg moom mënta mun mënta ñàkk ba pare jàmm am ci réew mi mënta ne mm-hmm. waaw loolu a. merci merci beaucoup ñu ngi leen di jaajëfal merci merci merci di kontaan ci yéen bu baax a baax di kontaan ci ñëpp ñi nga xamante ne jamono ji tànn nañ télé Sénégal ngir sàkku xibaar ci li nga xamante ne moo xew ci réew mi ci si kanam itam ah xam naa bu 15 heures daañu gën a wàccaat ci mbedd mi wëraat ndagaaru nañ ko defee woon démb dëgtal leen lépp li nga xamante ne xibaar la jëmee ci euh, série de manifestation yi nga xamante ne ñoo ngi am ci biir réew mi soxna sa ngeen def. ñooy sant yàlla bu baax foo ñuy woowee. ñuy woote fan jigéen coor. naka waa Sigi coor. foofu niki démb am nañu xibaar ne am na beneen ndaw su fa ñàkk bakkanam. ah bu moom kay ni li def ci kaw ndaw yi moom moom it ci dara. man jàngat ngeen def ci li mel. ah lii de moom ñu nii rek. Mhm. mais ñu ñaan yàlla dañoo bëgg magasal mu abal ñu rek te yàlla tax. Mhm. parce nit boo nekkee ci nguur ba nit ñi doyal fi yow. Mhm. dangaa war a mm-hmm. te nit waroo yor bu dëgër nguur waroo yor xol bu dëgër mm-hmm. dafa war a muñal ay askana mm-hmm. mu xam ne moo réew mi kenn nit ñi si ginnaawam rek lañu mun a mënuñ topp si leneen konoon boo bu ñu jiiñee nit viol te wóor na ni defu ko lu mu gën mooy ngeen bàyyi ko ku ko jiññoon ñu jéem ko teg ay daan loolu mooy lu war te mooy yoon d'accord mais nag ah, ñu ñaanal daal jàmm ci Sénégal merci merci beaucoup te ñun ñoo bokk Sénégal mënuñu ko mm-hmm. waaw Amadou Ba la ko ay kan d'accord an waa jërëjëf ñu ngi woote ci kanam incha allah ok amul problème merci ñoo ngi leen di jaajëfal di nuyu ñëpp ñi nga xam ne jamono ji ñoo ngi bàyyi xel Sigicoor ak itam Cap Skirring euh, foofu nag nañ ñu ni ki dem am na xale bu fa ñàkk euh, bakkanam lii la tax ba bilan bi euh, weesu na juróom-ñeent jamono ji moo ngi ci fukk ak juróom-ñett yu ñu confirmé waaye nag nee nañ ñu yëf yi àgg na ba fukk ak juróomi nit yi nga xamante ni ñàkk seen bakkan li lee ci ñaari fan yi kort yu manifesté ñu jël keneen ko nekk si ligne bi salaamaaleykum. aleykum mbokk mi na ngeen ñoo ngi lay Euh, di la kontaane bu baax a baax foo ñuy woowee. waaw maa ngi Dakar. naka waa Dakar. man jàngat ngeen di def ci manifester yi nga xamante ne ñaari fan euh, am nañ ko tey nekk ñetteelu fan wa ñu ne fukk ak ñetti doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan ci euh, xayma yu officiel yi nga xam ne am nañ ko waaye jàpp na fukk ak juróom ci xibaar yi nga xamante ne sunu mbokk taskatu xibaar yi ñoo koy ñoo koy ñoo ngi koy fësal. waaw xanaa am gàcc mhm. ci sunu réew mhm. moo xam ne dañ réew fan réew moo xam ne dañoo amoon ne ñu ko njiit mun mun ya am yaakaar mhm. yaakaar yu tool ñett ñi sax ñett ñi sax muy muy sëriñ ak prêtre mhm. ak politique mhm. sëriñ si yéexa yeexa mhm. jàpp leen presse bi parparloo politique yi xooluñu suñu intérêt ba bàyyi ñu ay Sénégal lam ñu dóor seen ñi nga xam ne foraatu suñu yaay ñi nga xamante ni seeni doom seen ngi dem ñii ñoo ngi maanaam lim bu ndaw hypothèque kenn koo xam ne mënati nga am neex mhm. ci suma mhm. ci Sénégal la mhm. doon lu ñaaw xool ñu defoon xeex bi nga xamante ni doon xeex ba ñu jël ko exilé ko jël du sàkk bi dinañ ko dundal. Mhm. dinañ xam lan la ko waaw mhm. te itam alaaji Maalik. Mhm. jëf bi nga xamante ni jëfal na ko ba taal ay jàng yu bari ñu defe sax waaye lépp ma dëgg day dëgg day merci merci malheureusement malheureusement rëcc na ma koy jaajëfal jërëjëf waay. merci merci beaucoup merci beaucoup xam naa ne jamono ji nag jafe-jafe connexion jëmee ci ligne internet bi am na waaye itam ci euh, woote yi waaye itam dañuy dañ ciy jéem a jàpp rek vraiment suñu wootee mën a gàttal mais ñëpp ñi nga xamante ñoo ñuy seetaan euh, mën a woote euh, taataan mbir mi joxe seen xalaat ci li nga xamante ne am na ci Sénégal ci ñaari bésu manifester fukk ak juróom-ñetti nit ñàkk seen bakkan jàpp fukk ak juróom selon chiffres yi nga xamante ne ñoo ngi koy wax waaye nag lii de fukk ak euh, juróom-ñaari nit ñàkkoon nañ seen bakkan vraiment lu mel noonu bëgguñu koon dund waaye jamono ñi nag dafa mel ni euh, ci yoon woowu la ñu nekk ban jàngat lañ ci euh, daal di def salaamaaleykum allo allo sëñ bi wala soxna si allo. waaw kooku dafa mel ni moo ngi dafay dégloog euh, téléphone am euh, dañuy wo euh, ñaan rek ñëpp ñi nga xam ne ñooy woote vraiment suñu xefee ba daal di dugg ci ligne bi rek ñu daal di fay appareil bi nga xamante ne wala mute ko sax appareil bi nga xamante ne moom la ñuy seetaanee wala di ko daal di dégloo ngir mën a bokk ci waxtaan wi di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan Diouf Dieng fàttewuma la seen Sport TV maa ngi lay jaajëfal Alex Sousso Abdou Diop maa ngi koy jaajëfal Mbaye Sarr itam salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. mbokk mi na ngeen def. aja bismillah ci waxtaan foo ñuy woowee waa ñu lay woowee fan ci Dakar mbaa ehm, yéen seen eh, koñ maanaam fi ngeen dëkkee waaye manifesté yu amuñu ay yàqu-yàqu yéen fa def waaw ñun moom dañoo xaw a mhm, mhm. Mhm. may wax eh, Macky Sall moo yàq ah déet waaw waaw ñun Sénégal dañ koo ak teraanga mais tey bu xool Sénégal ay injustice parce que mënu wax topp nit ki affaire de viol deux ans ne li nga ko doon topp amatu nga jublu ci kat ay daan te alors que ki ko jiñoon ki ko jiñoon moom boobu wër moom ñu war a ñu lépp moom kon moom tey moom moom am responsable bi Macky Sall bu koy jàmm am jàmm day am deux mille onze bu koy fal lii nii lépp xamam te moom la doon fàtt kon fàtt xaju fi kon moom wul wul wul bi di ku ñu tànnal ku ñu ku ñu fi toogal tamit wala fii le peuple ki jiitu toogul kenn ku ko bëgg suñu bëgg. Mhm. kon nag delloo sa xalam. Mhm. population xoolal ki neex ñu teg ko fi. Mhm. am réew nag boo xamante ne loolu laay faral nañ Sénégal réew ñoo ko bokk kon nañ delloo si bu baax baax baax. d'accord merci. waaw jërëjëf. merci. merci beaucoup merci ñoo ngi koy jaajëfal di ko di ko remercier bu baax a baax Moïse Endurant maa ngi lay maa ngi lay euh, nuyu no justice no peace Gilbert Cyprien Préra maa ngi koy jaajëfal Serigne Ndiaye ah, Def Unity Aboubacar Bip Aboubacar wax naan nga jox ma sa tur moo gën <laughs> maa ngi lay nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax sëñ bi ngeen def. allo waaw sëñ bi fi nga nekk nag euh, dañoo xaw a am ay jafe-jafe ngir déggante. Hmm. allo. waaw kooku rëcc na di xaar keneen ba léegi ci 77 810 90 90 Diouf Dieng maa ngi lay ñaan maa ngi lay jaajëfal Zong. Zong Zong moom Zong maa ngi lay Zong maa ngi lay jaajëfal El Hadj Malick Ndiaye fàttewuma la soxna Bintu Diédhiou Mamadou Sané Moustapha Niang Xasum Niass Troubadour maa ngi lay jaajëfal Aïssata Ba Omar Kayta Babacar Loum salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ça va yéen ngi ci jàmm. sant yàlla bu foo ñuy woowee jamono ji ñu toll. Kaolack. naka waa Kaolack. foofu nag amoon nañ ay école euh, këru ki nga xamante ne mooy li euh, Pape Mademba Bitèye nekk euh, directeur bu Senelec foofa am na ay ndaw ndaw ya ko bëggoon song. waaw man nag ne dëkk yu ma ko doyee quoi. Mm-hmm. mais si réew mi rek. Mm-hmm. man dañoo xamul ndax si si réew lañ nekk wala si kenn si si luñ nekk quoi. léegi pour yow lan nga jàpp ne moo waral jamono ji nag yenn ndaw yi nekk ci mbedd mi daanaka di manifester ak toj ak yàq. xanaa ay suñu njiiti réew ak jël seen justice bi teg ci loxo leen di loo ñuy def leen di bàyyi loo ñuy bàyyi jeunesse bi lu ñuy def nii yëpp loolu képp la parce que euh, li bi joxe bërki démb verdict bi maa la quoi maa ah déet waay rek li ñu def tamit bu xel yow lu mat ñetti at ñu téye nit ñi viol viol viol te mu ñu xëy ñu ne bio amul di di jël jël loo xam ne teg ko boo kenn xamul daal Sénégal si réew la ñàkk man daal man saa vision moom a génn Sénégal moom dama xëy génn moom démissionné définitivement parce que lii moom dictature la. merci. waaw ah, jaajëf dégg jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñuy bàyyi xel Kaolack Thiès Ziguinchor euh, Cap Skirring euh, xel yeeg xol yaa ngi fépp ci Sénégal ndax li nga xamante ne moo fi am euh, ñu waaye itam. mbir lu jot am rek dañuy jàngat xam lan moo ko daal di indi ak lan la ñuy def ngir rek daal di moytu ko ndax su fekkoon li fi xew arte woon nañ lu tax kon ñu dox ba jëmi jam la ñu mel aussi xew salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk mi na ngeen def